bismillahi arrahmani irrahim barke borom tuuba ñi ngi woon ci garabuk tuuba ci xaaju fukkeel bi ànd ak sëriñ tuuba ci waxam ju tee ju sell ju neex de ci njàngaleem ci téeméer bi ak juróom fukk ak juróom ñeent ci lañ toll sëriñ tuuba xaada lawo allahu maxtaara lawo mas naa taxaw ci na taxawal kéte nugu rey ci juróomi taaluba yoo xam ni dañoo defoon lu waral ak ray ci yoon sëriñ mamor jaara ak sëriñ musoo bi radiallahu taala anuma ñoo taxaw ni ko lii nga def noonu la waaye yuroo kilifteef gu mag gi ci réew mi fim toll nii nasaraani ñoo ko yore ak seeni kilifa li war moo di nga yëgal seen mbir kilifa gi leen fi nekkal te booba moo di tanoor sëriñ bi dëppoog ñoom yóbbu leen ci moom ngir gis xalaatam ci ñoom waaye mu mel mu mel ni loolu reyul ci moom ba ñu fa nekkee ab diir mu bàyyi leen ginnaaw ba lañu tuub sëriñ bi nangul leen ngir tuub gu sell wér na lool sëriñ tuuba xaada laxoo laahu maxtaara laxoo bi muy nekk gànnaar am ña cu taalube yi ku defoon lu ñu ko war a gëtane sëriñ bi génne ko mu dem wér na lool ba tey am na ñaar ñu loolu daloon bi sëriñ bi di nekk njeereem mu génn leen lakk seeni yére tumuraankeel leen ay at ginnaaw ba ñu ñëwaatee itam taxul mu dugganteeg ñoom noona waaye génnewuleen ci mbooloo mi wér na lool am na soxna su ma say ñëw ci waa kër sëriñ bi xaada lahoo laahu maxtaara lahoo ñu teral ko lool toog di wax ak moom booba sëriñ bi mi ngi dégg li ñuy wax muy wax ak ñoom ba mujj mu mel ni mu ku jëm ci tudd ku teewul soxna yi ñépp noppi ngir xam guñu xam bañ gu sëriñ bi di bañ loolu ba muy bëgg a béréel sëriñ bi jug gëdd leen ñu daw mu wax ni nañu ko andil sawara daa di lakk basang gamu toogoon di jëw wér na lool serigne bi khada lahu allah makhtara lahu neena samba lawbe jarbatu la jor masna ñew ci serigne ma mo radiyallahu taala anu niko dama am haajo juma hitte lol beggon nga dimbule ma ci te modi sa dom ji boba man lay jublu dama ko bëgg lool moma gënal serigne yépp dama ko bëgg jago ni nga xamni sa ni jaay nonu la def lii mooy sama haajo bu fajoo loo bëgg ci man danga ko am sëñ moo radiallahu taala anu ni ma kii sàmbalaw bi lay wax dani ko kii nee na dalaa bëgg lool bëggoon ma jottalil ko ak soppam nee na itam dalaa bëggoon a def nga bokk ci ñuy sës ci moom loo koy tontu ma noppi ngir màggal ko ak rus ko mu baamu ko ma ni ko leen rek laay ragal sunu borom di ma gis lu toll ni aw fepp di nekk ci sama xol ci bëgg adduna wala jeng jëm ci kudul moom wala malaaka yàlla yi nga xam ni duñu def lenn lu dul la leen yàlla tabaraka wa taala di digal di ma gis may fopp samay tànk di ko jëme ci foo xam ni bokkut ak seeni jëmukaay sëñ maa moor radiallahu taala anu ni subhanallah loolu naan waay bu sori la soree naag lim bëgg di mën a am wér na lool nettali bi andi woon naa ko ci safwatu seer fii siirati xadimi xayril basar ci waxinu sëriñ basiru radiallahu taala anhu ci min nanul baaxil xadim waxin wi waxinu sëriñ muhammadu lamin la radiallahu taala anhu te ñoom ñaar ñépp sëriñ bi moo leen koy nettali te gis nanu waxin wi ni muy wuutee te mën naa am bi ko sëriñ bi di nettali ci benn jataay la loolu waxoon nanu ci téere bi ni day gën a saxal nettali bi wallahu aalam sëriñ bi xaada lahu llahu maxtaar lahoo daana bind bataaxel sëriñ maamoor anta sali radiallahu taala anhu naan ko bàyyil buur yi seen tedd ngal àdduna toraxug alaaxira la bu ko gisee ni ko def ngalu rafet waaye defuma ko ngir bëgg seen àdduna dama koy def ngir maslaay njaboot gi wa daarihim maa dumta fi daarihim wa ardihim maa dumta fi ardihim wér na lool sëriñ tuuba xaatarlahu llahu maxtaar lahoo nee na ki yeesal am njàppam ngir màggal julli gi mi ngi mel ni ku am gan gu tedd rayal ko ab gàtt mu jëfandiko ca la ko soob sant lool dem ndawal ga des fa keneen gan ñëw bu ko tarelee ca desiiti gan gu njëkk ga taral gu mat lay doon waaye bu ko rayalee baneen gàtt muy gën a mat ci lay gën a yayoo ak cant wér na lool sëriñ tuba xaada lahu allahu maxtaara lahu nee na dee leen waajal julli balaa waxtu wee tàbbi doonte seen saala ndax seen xol mën a teew ci julli gi moo gën ngeen di nekk ci ay soxla ba ñuy lixaam ngeen di waaxu néew na lu ak teewlu di am ci loolu wér na lool sëriñ tuuba xaada lahu llahu maxtaar lahu nee na ab tukki li tax masib ko moo di ragala faat julli mbooloo wér na lool abdul wadud radiallahu taala anu nee na moo wax sëriñ tuuba xaada lahu llahu maxtaar lahu wala daa am ku ko ko wax da ngay julli waxtu wi ci njël biyen gi sëriñ bi ni ko dama koy gaawe ngir topp ndigal wér na lool damay jàpp ni sëriñ bi moom li ci ëpp day taxoo mbooloo te man na ni li tax ñuy yeexe ginnaaw nodd gi mooy mën a am mbooloo ak loolu mu leeral ba tey wa ajiltu illayka rabbi li tarda ak saari oo ila maxfiratin min rabbikum teewul ba tey yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka neena ki xaar julli gi di ko nit ginnaaw nodd gi toog ci biir jàkkat yi mi ngi mel ni kuy julli loolu da nga ko gisaat insha allahu taala ci téere yi sëriñ bi di bind ci biir téere bii wala gis nga ko ci ginnaaw wallahu alam sëriñ tuba xaadallahu allahu maxtaar lahoo neena neenañ ma tee ngaa wutal jàkkat yi imaam ju noppal ci dem ak dikk bu bari bi sëñ diw ak diw dañoo am ay imaam yu bari ma ni kon lan lañ soxla woo ma ni ko lan laay soxla woo bu ma bàyyee julli mii jiitu ci jaamu yàlla yépp jox ko ab imaam ndax am na leneen lu gën a màgg julli am dama koy féetale li gën a màgg gën a féete woo man li gën a suufe ci lu dul benn ngànt loolu moo di suufe ak rotu xitte yal nañu ci yàlla tabaraka wa taala musal wér na lool lii doy nanu sëkk ak soññu war na noo xam ni waxtu wu nekk la yàlla tabaraka wa taala yëkkati mooy la kawe doonte suufe ne ci nit ñi ak jamono ji yonente bi salallahu taala alibi alihi wasabi wasalama nee na nit ñi bu ñu xamoon li ci noddu ak sàppe su njëkk bu ñu ko amul danañ ci dóorante ay jeesi wallahu aalam man muhammadu lamin serigne touba khadalo hola maktalo ho masna salmal julik suba gisuma ndax boba dama tawat ba mu lere mu joge ci jakka ji wut ci sama kër ba mu accé ci buntu bi woluma ma genn di daw mu yemu lol di re ni man ni nga may dikkale te man ma ñewoon ngir seet ci la ndax dama jappo ni lila tere julli ci da nga yëgatul dara wirna lol serigne touba khada lahu allah makhtar lahu ku amon tawati sedd la ci ak ñeekam motax da daan baxal ndox ba mu bax mu upp ko wacc ngir bu joge ci guddi gi man ci jafandiko fekk mu nuggu bu noppé diw ay ceeram taal sawara ngir jaaru wirna lol serigne touba khada lahu allah makhtar lahu neena bama xamlo attay la ba legi fatalikuma fuma timé ludul wenn yon ginaaw sama ñaar fukki at ak lepp te moori bi serigne mam mor radiyallahu taala anhu laqo bama samba gane aduna ndayam da nekkon ca ay nijaayam ca kokki ma demon fa ngir nemmi ko ko ndax ginnaaw sëriñ mamor radiyallahu taala anu la gane aduna te maa doon taxaw ci ay mbiram booba ba ma fa yendoo ba nuy dellu ginnaaw tisbaar ki ma joxoon satala gi fàtte cee def ndox ba takkusaan jotee ma laaj ko dara ci ndox niwu ci nu wéy di dox yaakaana danenu am ndox ba jànti bi dawaa so ma wàcc tiim boobee laa mujj tiim ba tey wér na lool am na ku masa wax sëriñ tuba xaada lao law maxtaar lao man damaa yarab sedd mënumaa jëfandikoo ndox du jàpp du sangu sëriñ bi ni ko bu fekkee dalay lor di ko jëfandikoo ray sa bopp la te ray sa bopp daganul ndax wérug yaram yi moo jiitu wérug diine wér na lool am na bis kilifa tubaab gi nekkoon njaareem woolu ko ba mu yeggee dégg ñuy noddu mu liqaam lu fa mu taxaw julli door a dajeeg moom wér na lool am na bis kilifa googu woolu sëriñ tuuba xaada laho law maxtaar laho te waxtu ti mis jige lool ba mu yeggee ni ko gaawal wax li ngay wax waxtu wi daa jige mu mer ni ko man ngay wax loolu man lu ma joteeg waxtu wi daa di jug dugg ca biir bàyyi fa sëriñ bi sëriñ ba ni damay nattu ndax danaa ko ragal di fi toog di ko nikk te saay-saay bi xamul ni ay kilifaam sax ragaluma leen ba may ànd ak ñoom nekk ca géej ga ku nekk dama daan xupp waaye ma mel ni gaynde wan leen ni duñu dara su ko defee ñu dellu ginnaaw ragal ma ànd ak torox daldi dellu fekk ñuy nodd mu julli wér na lool ginnaaw lii lañu xam ni da koo defoon ngir nattu sëriñ bi ak beneen sëriñ boo xam ni feneen la nekk ànd ak geneen kilifa ak tubaab ñoom ñaar dañu doon déggante ginnaaw bu ñu dëppoo wax ni dañu leen di woo ci waxtu julli soxlaa leen ba duñu julli ku nekk bi mu laajee moroomam nan la sab sëriñ def kii xamal ko ni dellu na bu yàgg jullee këram keneen kilifa ga ni ko man sama sëriñ mi ngi nii toog bu ma ko bàyyiwul dem laaj naa ko ndax julli nga mu ni ma bu ma delloo julli wallahu aalam sëriñ tuuba xaada lahoo laahu maxtaara lahoo mas naa wuy jig kilifak tubaab googu ba ñëw ni kaay leen ma xibaar leen ci guddik tey xibaar bu yeme ba ma demee kat dani ma dama lay wan ab kaamil ci seen alxuraan ji ma ni ko andi mu andi téere bu rëy te rafet ma ñortu ni minnum arab la negate minnum tubaab la ma ni ko jàngal mu tàmbali di jàng ci tubaab am ko koy tekkil ci wolof ba mu waxee ñaari yoon ak ñett ma xam ni loolu muy jàng tàmbulik suratul furxaan la ma bàyyi ko ba mu àgg ci walam yakun lahu sharikun fil mulk ma ni ko taxawal mu taxaw ma ni ko loolu délëf la mu ni ma lu mu ma ni ko nee na amul ku koy bokkaale ci ak nguuram te yéen di ngeen di wax ni xiisaa yàlla la mu ni ma waaw dañuy wax le yàlla la ma ni ko bu doon yàlla du faatu mu ni ma yëngoot yi ñoo ko rey waaye yàlla la du faatu ma ni ko sa wax yooyu ànnuñu faatu na du faatu mu ni ma noonu la deme ma ni ko déedéet mu ni ma noonu la deme ma xam ni daa jeng ma ni ma xam ni daa jeng te amutoo lay ni ko génneel baneen bërëb mu ubbi ñu may tekkil ci worof li muy jàng ba mu waxee lu man ñett yoon ma xam ni loolu sóolutu taqaabu ni la ma bàyyi ko ba mu àgg ci zaama lësina kafaroo ana yub xasoo ma ni ko taxawal mu taxaw ma ni ko loolu dilëf la mu ni ma lu mu ma ni ko di ngeen di wax ni deesu leen dekkal ku faatu jeex na mu ni ma loolu la nuy wax ma ni ko sunu boroom nee na xul bala wa rabbi la tubxasunna suma la tunnaba unna bima amiltum dana nu dekki dana nu xibaar li ñu doon def mu ni ma loolu la wax waaye nun danoo gisul ku faatu dellu si mu daadi may wóor ni alxuraan yor nañ ko noonu ñi leen jiitu daan waxe asaatiru lawalin ma bàyyi ko ni ko loolu doy na la ginnaaw lii la sëriñ tuba xaada lahu llahu maxtaar loo wax ni li tax saa boroom xiir ko ci lii da bëggoon maséere lii nekk itam aw lay ci kawam bëgg itam ma gis bu wér kuy wax ni yàlla ñett la ak kuy wax ni dekki amul wér na lool sëriñ tuba xaada lahu law maxtaara lahu masnaawu ji kilifa goo gii ba dellu si muy waxtu guddi yor jumtukaay bu ñuy tàngale kafe romb ci sunu néeg serigne mohamadou lamine mooy nettali ba tey radiallahu taala anhu booba danoo defaloon ab néeg bu nuy nekk di bind ay kaamil ak ay xasaayit matoon nanu ñeent ci buntub soow ba la nekkoon buy génn rommuñu buy dikk rommuñu ba mu nu rombee ni kaay leen ma wan leen kiimaan nu ñëw mu wax ni nanu taal sawara te tàngal ndox mi jumtukaay boobu tege ci kanamam yéeme lool ni mu misaale mooy yi nu miin nga xam ni ndox mi day nekk ci suuf kafe gi nekk ci digg bi bu tàngee yéeg ci kaw seggaale kafe gi mu nekk ndoxum kafe ñetti kër lay am mu tàmbali di waxtaan daadi ni kii ma woo woon ba ma toogeeg moom ba wax ak moom lu yàgg dani ma dama lay defaral kafe te mën amuma soxla ci ak kafeem ma ni ko bu la soobee ngir mu daarante mu andi jumtukaay bi ma ne ko bu ma naanee ci sa kafe gi damay yóbbaale kii de mu ni ma waaw waaye da nga ma fi bàyyil kaas bi nga doon naane ngir barkeelu mu tàmbali di defar ba mu seggee ba noppi andi suukar soosee xaw a mel ni lu xongu ma ni ko bu ko ci def mu ree ni ma ndax da ngaa jàpp ni tooke la posen ma ni ko déedéet te bu ko doonoon itam du ma lor ci kàttan gu yàlla tabaraka wa taala waaye dama bëggut suukar soosu andi ma naan ko noonu mu jox ma ko ma guux ca benn guux boo xam ni lama ca fas yàlla xam na ko bi mu nettalee lii ba noppi tàmbuli di defar kafe dinu wan ni ñu koy defare daa di ni lii am màng la màng mooy li ngay jële ci say noon bi ngay xareel boo ko notee bi am màng la ci man ci ñoom ndax ñoom lañu doon xeex ak man ci nit ñi ak li ci loxoy nit ñi jàpp ni dama cee am soxla te man amuma ci soxla ma daal di jël sama mbir yépp jëme leen ci yàlla tabaraka wa taala du ma jeñ ci kenn ku dul yàlla tabaraka wa taala sunu borom notal ma ci kàttanam inna allaha yudafiu an illasina amanu wér na lool sëriñ tuba xaadaloo law maxtaar lawoo amna ay nit yu bëggoona lor sëriñ tuba xaadaloo law maxtaara loxoo jaxase koog tubaab yi bi mu nekkee njareem ñetti ña leen jiite woon ñu ñu xam lañu dañoo jël bayit yi nga xam ni sëriñ bi da ciy tudd loo xam ni war naa mën a naqari tubaab bi di leen dajale mel ni waylun liman ilan nasaara maala likay yanaala miknatanaw maala لا يعبدون الله جل أبدا بل يعبدون المال حيث ما بدا إمامهم قد صرفت للخمر وللخنازير وترك, وترك الأمر إن لم تتوبوا وتعينوا الدين وتتبهوا المشفع الأمين فانصرفوا للخير في الدارين وراقبوا العارين والنارين أف لكم أف لكم أف لكم ويل لكم ويل لكم ويل لكم, ويل لكم إن المهاجرين والأنصار لم يعبدوا اليهود والنصارى يا أيها اليهود والنصارى موتوا ولا ترجوا غدا أنصارا يمل نون لنجلون فريلين كي تباب جوخ كليفا غوغو تي نياريم نيكو خولال لي سيرن بي واخ تي يين مومير لول يوني وولو سيرن بي خاد له الله مختار له مو اكسي مو جوخ كيدو نيكو يا واخ لي تي نون sëriñ bi ni ko man maa ko wax mu ni ko lu tax nga wax lii man mosumaa gis kenn ku ñimee wax lii ci nguur gii sëriñ bi ni ko man ngàññu ma kudul ka alxuraan di ngàññi ndax yéen la alxuraan di ngàññi te lii nga gis bay mer boo ma gisoon ba ma koy wax ak la ma say nit doon def ci xeeti lor da nga xeeb lool lii ma wax mënuñu woon a ñëw ci man laaj ma li ma wax waaye ñoom dañuy fartaatu ci waxi gone yi rek ak ñi xamul dara te ñii def lii bëgguñu la la biir bëgguñu la ab xaalis képp lañu bëgg ci yow te bu ñu dikkoon ci man ma jox leen ko te lii du leen ci fekk mu ni ko man ngaa dellu wér na lool sëriñ bi xaada laho allahu maxtaar laho am na ku mu yónni woon te moo di sëriñ cheikh diob radiyallahu ta'ala anhu ca ñooñee bindoon loolu ab bataaxel boo xam ni la ca nekk moo di diina ji ngeen di sib ci man moo di laa ilaha illallahu muhammadun rasulullahi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallam wa baraka ni ko wan ko diw te bu mu ko laal bu mu ko gis wir na lool kooke ba mu gisee loola la daa di juge njëreem dem dakar fekk na booba am tawar ju fa am ba tax ko dugg du génn mu doon jéem a génn ba ak si këram ñu yëg ko boole koog waa këram gépp yóbbu leen fu sori def leen luy sabab seenu faatu ñoom ñépp faatu naka noonu ña ca des ñépp ku ci nekk ak mujjëm refetul wallahu aalam am na kilifa tubaab gu ma sabax sëñ tuba xaada lahu allahu maxtaara lahu gisuma nga bëgg ci àdduna lenn lu dul alquran bu ma xamoon laneen loo gën a bëgg danaa la ko jëndal jox la ko hadiya ndegeem alquran nga gën a bëgg danaa la jëndal kaamil boo xam ni amul morom tàmbulee gëstu ba mujj jëndal ko ca alchéri ab kaamil bu rafet jox ko ko sëriñ bi daana ko taqoo naan kaamilu buur am na keneen ku ko mase jëndal itam ci ñoom sarxub al imaamu lxuftalaani ci al buxaari sarxu ba nee na abdu wadduot laa ko jox wér na lool kilifak tubaab googu mas naa ñëw ci sëriñ tuuba xaada lahu llahu maxtaar laho ginnaaw takkusaan ci këram sëriñ bi tegal ko ab toogukaay mu toog ca moom mu toog fi suuf ni mu ko baaxoo defe mu tàmbalee wax ak sëriñ bi nas tuut mu génne li muy tuxe defar ko ngir boppam defar baneen ngir sëriñ bi ni ko da nga jëfandikoo lii sëriñ bi jubluwaat fenku ferangu laayu daadu tàmbali ànd ak taw tajwit ni ahamudu billahi min ashaytanir rajim قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلى الله ولا نشرك به شيئا ولا يتقص بعضنا ولا يتقش بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون نيكو لي موي سمك توخ مري تامولي دي توخ موم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 sëriñ bi xoolaat ko xool bu tar gëdd ko ni ko yaa wax loolu mu ni ko waaw sëriñ bi ni ko yàlla mi ne bil melal la ni ko mel toogal la ci bërëb bii te bu ko neexoon sag nokki du del ci moo yónni muusa digle nu gëm ko tudd ko ci mag ci yonante yu mag yi mu daal di tiit tàmmulee lox ngir waxe sëriñ cuubaa xaada laxoo laxoo maxtaar laxoo daal di tàggoo dem wér na lool mel na ne lii moo di nettali yi ma jëlee ci téere sëriñ mohammadu lamin joob dagana radiallahu taala anu foofu lañu yam wallahu aalam sëriñ tuuba xaadalahu law maxtaar lahu nee na li ma yàlla tabaraka wa taala defal te mësu koo defal kenn ca ña jiitu woon te doodu ko defal kenn ci ñuy nar a feeñaat laataa mu ma koy jox daa dajale ay soppeem ca ësal ba dara amul maanaam yaram yi amagul génne lu rëy lu màgg lu kenn mësta gis teg ko ci lu mel ni ak najnjaama mooy garab gu mag gu rëy muy dem ak a ñëw kenn mënta xam la mu doon ngir na mu kawee ak na mu soree xamal leen ni lii dama ko jële ci xazainul malakuuti wal juudi bëgg koo jox kenn ci yéen bu matalee ay sàttan kenn ci ñoom ñi ma jub kenn ci mbooloo mu jug ngir sopp gu mu sopp buur bi ak warmaal gu mu ko warmaal ak xam gu mu xam ni xam ni bu waxee loolu rek lu mën a am la ni ko ana aatiika bihi ala wacci wa inni alayhi la xawin amin danaa la ko defal ca anam ga nga ko bëgge mën naa ko sunu boroom sàttanteeg moom dëhal ko bindal ko ab téere wax ko ab ab ak waxtu wa muy jot ni ko dellul xaar ba booba ba ab wa jotee ba ñu andil ma téere ba laata ma koy ubbi xam naa la ca nekk ma daal di jug bàyyi kër yi ak njaboot gi soobu yoonu géej gi di liggéey yàlla tabaraka taala lu ma juróom ñetti at yu yees tuuti sunu boroom ni ma fa in an mamta ashran fa min indik falama xadee muusa laa jala mooy li waral yoonu gànnaar yi booba la ma wax ni inniya innaniya anallahu rabbul alamin may yalla ma mom lepp may na le lepp xiwna mel na ni dana nu xamaat bay wi alamani ma kana qabla al khalq man kana li bi karamin wa tilkhin serigne afiyatu busa radiyallahu ta'ala am amna ko massa gane aduna ci ay wa karam serigne touba khadalahu allah makhtar lahu wax ni nañu ko tudde muhammadunil mukhtar koke am rak mu wax ni nañu ko tudde abdullahi bayam mu amaat rak mu wax ni nañu ko tudde maamam abdul mutallib siiw na serigne touba khadalahu allah makhtar lahu neena li tamulee alladhina yaxmiluuna al arsha wa man xawlahu ba ca wasaalika huwa al fawtul asim man naa jullee juróom ñaari néew xëy na ku koy jàng da nga koy jiital teg ci ñaan ginu miin ci téere yi wallahu aalam sëriñ tuba xaada lahu allahu maxtaar laho mas naa wax ca gànnaar am mbooloo mu jëmoon fi moom kenn ku nekk ci yéen am na bis ma xàmmee la nga bëggëg la nga bañ ba mu des jëm ji jublu ci serigne cheikh ñang radiyallahu ta'ala anhu daadini ba ci diw sax tuddu aw turam siwna amna tubab bu doon seet ci serigne touba khada lahu allah makhtar lahu ci njereem wax ni da ko xamoon ba muy nekk ci tukki bi serigne bi wax ni nañu ko ubbil buntu yi te yaatal ko mu ñëw ndax nun loolu wolof di wax ku say xam yenniku bu yaboo fabu nun bokkuñu ci nun fu suñuy xam yennikoo nu lal kennal siiw na sëriñ tuba xaada lahoo laawu maxtaar lahoo nee na damaa wuuteeg ñama fi jiitu woon ndax ñoom bu nit dikkaa fi ñoom di wut dugub dañu lay wan àll bu yaatu wax la ni ñuy ruuje ak ni ñuy baye man mi sama ñoñ dano ñew fekk ma matim sama njaxas yor sama tibukaay ku ñew ma tibal la ciwna amna ku ma sa dis serigne touba khadalahu law makhtar lo soxla ba mu amub dir mu dikkat serigne bi ni ko na nga def ak soxla sa mu ni ka lola kay sant na ci yalla tabaaraku ta'ala serigne bi ni ko santal yalla tabaaraku ta'ala ci wir yépp ak cant du wàllu xayna du am ay wàll maam da koo war a sant ci lépp moo tax sëriñ bi ni ko santal yàlla tabak taxalaa ci wér yépp ak cant du wàllu wallahu alam